ñaareel wax naa leen ko léegi dama gëm ni dama gëm yàlla d'abord waaye gëm ni askan wi tax ñuy sonn askan woowu du toog di ñu seetaan ñuy faagagal moo tax bi may wax askan wi laa waxal mu amoon nag ay kilifa diina yoo xam ne teel nañ cee àddu wax ci wax ju am solo ñu ràññee ci ku lim juum nag waaye ñu ràññee ci sëñ xab sëñ Habib si Dabaax yeneen yéen ngi fàttewul tax daa fàttaliku taxawaayam te li mu doon wax buñ ko teeloon dégg mbir mi du egg foofu mu yegg noonu yéen ciy fàttaliku sëñ Fallou Mbacke Jumaada rahimahullah nga xam ne ci diggante bi yàlla def na li gën ci moom lam ci doon wax buñ ko dégluwoon mbir mi du egg fu mu egg ba li ci yàqu-yàqu ci ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ci seeni xutba nee naa juum ay imaam ay ay ay ay oustaz ay prêtre am na ñu bëri ñoo xam ne waxoon nañ ci te ñun du ñoon ñoo dem laaj leen leen wax leen parce que dañoo jàpp ni bu ñu bokkee réew mi ñoom ñuy suñuy kilifa ci fànn googu ñu nangul leen ko bu ñu gisee lu nar a yàq réew mi aajowul ñuy xaar ba ñun ñu ñëw ne leen wax leen ci parce que tuuti nañ trop ci wax leen lu ñu war a wax ak lu ñu war a def waaye malheureusement kenn dégluwul woon ba mbir mi egg fi mu yegg bi mu yeggee mu yegg it gëm naa ne kilifa yépp def nañ ci liñ ci mën a def waaye sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér dafa jël ay ndaw yebal leen yebal ndaw gu mat ndaw nag muy sëñ Basiru Poroxaan bi mu ñëwee ñun ñëpp dañoo daje fii lañ ko recevoir hôtel Mamoun yéen la la presse na ngi woon foofu mu wax ci kanamu àdduna yépp nag parce que du loo xam ne dañoo tëj woon ci néeg di ko wax moo tax xawiwuma fi sutura li may wax yépp su ngeen duggee léegi ci YouTube gisaat vidéo yi mu wax ñépp dégg ko mu ne kilifa gi dem moo ma yónni nee daf leen ñaan ngeen teg mbir yi ci suuf manifestation yi ngeen war a def suba ak fan yi di ñëw ngeen may ko bàyyi ko waaye yemul foofu li ngeen xam ne moo leen métti ci réew mi na ko tënk cib kayit teg ko sama loxo ma yéet ko ko moom dina ci dox lim ci war a dox loolu amee ndax dañoo amoon ku dañoo am kuréel gu tudd m 2 mouvement pour la défense de la démocratie bi mu amee mouvement bi yëpp daje waxtaan ñu ne kilifa gi ñaan nañu nañ ko ko nangul looloo andi woon dal bi amoon ci jamono jooju dafay baax ñu fàttali parce que jamono jooju bu ñu bàyyi woon xale yi konte li ñuy def ñaari fan lañ ciy teg ñaar moo mun am soit nguur gi dina daanu wala li fiy rot ci bakkan dina bëri trop man ci lañ ma doon doog a bàyyi le 6 laa génn ma ma jël le 8 laa génn le 8 mars ma jël sama responsabilité fii ci salle bi laa def conférence de presse leader yëpp nekk fi ne nii la demee nii la demee m 2 def conférence de presse ñu ne kon mbir mi ñu ngi ñaan ñëpp ñu bàyyi mu sedd kenn ku ne dellu këram. loolu nag doonoon ndam ci Sénégal ndax àdduna bi yëpp dañu ne xool leen modèle sénégalais bi du tubaab moo jógee fële ñëw àtte suñu du Nations Unies moo ñëw àtte ñu du euh, Union africaine moo ñëw àtte ñu du CEDEAO moo ñëw àtte ñun ñoo am suñu modèle fii ci biir réew mi ñu wane ni modèle boobu mi ngi dox ba léegi parce que nit ñëpp demoon nañ ba ne waaye nit ñi déggatuñu nii ñëpp wane ni am nañ fi ay kilifa yu ñëpp déggal ba suñu nee def leen di nit ñi nangu ko def ko mu woon ndam gu rëy tere yëpp wane ko France 24 BBC TV5 ñëpp def ci reportage ndam googu nag nga xam ne ndamu Sénégal la woon di ndam suñuy kilifa diine waaye di di suñu ndam ñun ñi acteurs yi nga xam ne seet nañu lu bari jox cër ak orma suñuy kilifa ba tax ñu ñaaj ñaan ñu teg ci suuf suñu ndam la woon ñu nit ndam googu nag mu ngi waaj a nërmeelu ndax fi ñu jëm fi ñu jëm su dee fa tegoon dossier bi lañ ko jëlaat ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi suñu kanam ci ay troisième mandat ki ay tëjaate ak ay reyaate fi ñu jëm li xewoon mën na xewaat ci lu yàggut te ñaanuñu ko yàlla te buy ñëw anam yi mu ñëwee dina gën a métti te kooku du doon ndamu kenn ci senegal am na nag lu bindoon teg ko ci loxo kilifa gi li may wax nii bu doon giseek moom yomb na ma du fii laa koy waxee damay toog wax ko ko yónnee nañu def nañ ñu mën a def pour mën a am gise googu pour waxtaan ak moom ci li xew ci réew bi juróomi weer ci gannaaw boobu egsee gu ñu woon fii honorable présidente ay Mbodj ak docteur Cheikh Tidiane Dieye jóge nañ fii Ndakaaru taal seen oto dem ba Poroxaan fekk fa sëriñ Basiru Poroxaan ne ko ah, sëriñ bi lii de lii ak lii ak lii waxoon nañ ko waaye lii ak lii ak lii moo am ci réew mi boobu ba léegi ñun nag ñu ngi commencé jaaxle dafa mbir mi di jëm kenn ku ne dina seet nu muy fagaroo te bu boobaa li muy yàq ci réew mi dina bari kon mbir maa ngi bëgg a yàqu te ñëpp sedd nañ li koy yàq jógewul ci ñun parce que sénégalais nag li ci ëpp ku fayu la xam mbir maa ngi bëgg a yàqu te jógewul ci ñun amul lenn lu ñu mën a ñun def def nañ ko te loolu moo indi coow li wala moo andi fitna ci réew kon waxuñu ko parce que dañuy wut ndimbal waaye bu dee réew bu amee fu mu toll ñi nga xam ne ñoom la jiital wóolu leen gëm leen ñuy kilifa diine faw rek ñu wax ci parce que ñun ñëpp seen njaboot lañ kon dañ leen di teel a yéegal balaa ñuy egg foofu kilifa diine yépp nag la ñëw ndax ñun amuñu si xaj ak seen kilifa diine yépp yi ne ci réew mi am dañu ci commencé addu démb rek envoyé nañ ma benn boo xam ne def naa kenn ci njabootu sëñ Abdou Lahad sëñ Murtada moo ko ci wax ñu koy rafetlu bu baax rafetluñ ko parce que dafa wax loo xam ne daf ñoo arrangé mais dafa wax loo xam ne mooy njëriñu réew mi kon ñu wax ñu tëjee ko foofu